Euh, dama wax ne El Hadj Malick bi fi jógee seede yi ngeen dégg ci moom bi ñu ko tàggee ajuma ba léegi waroon naa doy wanna man dama ci yokk sama baat ndax fii ci ndakaaru suñu mag la masa nekk suñu mas a mas a mais wante tam nekk yu royuwaay am na loo xam ne da nga ko fàttewoo ci su leen gisee ba ñu demee ba jamono suñu papa yi ak suñu nijaay yi bàyyi xale yu bari ñuy ja ñuy football yi ku mel ni El Hadj Malick moo wone woon ci taxawaayam ne mun nga jàng. nekk universitaire nekk un bon footballeur et ça ça a beaucoup servi son catégorie yëpp. ensuite comme universitaire donc ko fàttaloo il a brillé dans l'équipe de handball il a beaucoup joué au handball et ça les gens l'oublient moi j'ai joué contre au handball bon autre chose extrêmement important c'est sa carrière administrative on met toujours une parenthèse mais quand on est arrivé à la grande réforme de l'administration sénégalaise avec euh, le rétrécissement du gouvernement Abdou Diouf avait créé les délégations je crois que Souris a le délégué à l'insertion, à la réinsertion, à l'emploi, je crois. En tout cas, il tenait une délégation avant d'être le premier directeur général de la Poste tout court. Parce qu'à l'époque, on, avait, euh, on avait réformé le secteur des postes et télécommunications. On a créé la Sonatel et lui, il a été le premier directeur général de la Poste qu'il a mis sur les rails. Et ça, c'est extrêmement important à, euh, à, à connaître. Autre fait très important, c'est qu'au sein du comité olympique, après Lamine Diak, il a fait partie des gens qui ont amené une couche de fraîcheur au, au, au, au sein du, du, du, comité olympique. Maintenant, les victoires, euh, vous savez, c'est un peu comme ça. Euh, li ngeen li ngay mën a jàpp ci moom daal te ma bëgg a xale bi dégg ko mooy li gën a wóor si àddina mooy jàng téye say diplôme wala nga jàng métier téye Alaaji Malick boole na football ak jàng baam ay diplôme kon xale yi di dox fii nañu xam ne jàng ak diplôme ak am métier du xumidaas muy benn bi ci des am njariñ say mbokk am njariñ say xarit ah El Hadj xëy na sax bokk lu ñu xam ne dañuy dem ci ay xawaareek ay làmb ay Sorano Grand Théâtre non ëppari discret moo bi muy bëggoo wax amul ci français muy sutura dalay lay defal teraanga bu la lebalee du la fayu bu lay bu lay may du yónni kenn moo koy taxawal boppam loolu sutura la beneen bi des kersa la El Hadji Malick wax naa ne lu mu raté ci politique kers moo tax ba Lamine Diack di bàyyi comité olympique damay wax lu leer a leer dafa présenté candidature am ñun ñoom ñu jàpp ci ñu dem ba ci biir Lamine Diack dab ko ne ko bàyyi maay sa mag mu ñëw fekk ñu ñu ne ko bul bàyyi yaay nekk président mu bañ mu ne mooy suñu mag loolu loolu lu jox cër la moo tax mu nekkoon premier vice président ab lay Seye loolu leneen beneen qualité moom bi ci des masul intéressé wu ci politique ñoo ci jàpp-jàpp ci réforme 96 bu ñuy créé le commune d' arrondissement pour mu nekk mairie Médina mais Souris ne s'est jamais intéressé à la politique parce que bu intéressé à la politique il aurait eu de grandes responsabilités dans le parti socialiste donc li ngeen mën a jàpp ci moom mooy koo xam ne kii dundam yëpp ci ay mbokkam la ay xaritam ay njabootam ak sport xale yi mu formé ci sport ay xaw ma ay Tony Silva ba mu fiy créé dama koy waxaat xam naa doon ko bind ba muy créé Aldo Gentina waa gendarme ko ñoo ko porté plainte man maa doon ministre des sports maa ko àtte ne suru moom moom moom moom moom Aldo Argentina yooyu bi da nga xam ne jaar na fi kon non la case moo mujjee la case mooy prolongement Aldo Argentina mais la case li ngeen ci xam nag moo ñu bari jàng nañ fa bu weer dee du ñu fay mu baal leen ah mais je le sais donc il y avait un aspect social fondamental waaw jërëjëf man daal nañu ànd ñëpp ñaanoo ko te tamit maa ngi ñaan te xam naa président dina ko def ñu seet xam naa du lu gaaw yi tamit matul yàkkamti parce que Senghor jóge fi am 20 ans ñu doon ko tuddee stade ñaan yàlla daal ñu dund ba réew mi teral ko teral boo xam ne kenn du ko fàtte ba abadan allahumma salli ala